njabootu sunu maam Cheikhul Khadim sunu maam Serigne Mountakha Mbacké borom mbég mi itam yàlla daal di ko sàmm daal di ko aar waaye mbooleem xalifa généraux yi ci réew mi yàlla sàmm leen aar leen ci barke mag ñi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu nga xam ni ñoom la caabi féete ginnaaw ñoo ngi ñaan yàlla yàlla tegaat leen ci yoon yi gën ñi feebar di ko wëyaale ak ñi ci kër yi yàlla na yàlla saafara leen nuyu borom ñetti xalifa yi di xalifa yi Serigne Babacar si xalifa yi Mame Malick Sall bu Louga waaye xalifa yi Serigne Moustapha si jamin di taawam bu baax bi Serigne Mansour si Jamil yàlla daal di ko sàmm daal di ko aar nuyu bu baax a baax a baax Seyda Zaman yaa Seyda maa ngi laa nuyu bu baax maa ngi laa ziyaara ci aljuma ji maa ngi lay kontaane damay wax nii boo ko soree doo ko xam waaye boo ko jegee ba toog ak moom soxol daal di sedd nuyu sama doom jooju soxna Roqaya itam Jóob maa ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax a baax a baax di la kontaane waaye di nuyu itam ku baax nit ku tedd tabaarakallaahu nit ku yiw ñu gën koo xam ni Seydina Xalil borom jaaru xaqiiqa yu baax yi kenn bonul lay wax Xalil maa ngi laa nuyu bu baax a baax maa ngi lay ziyaare sama soppe boobule di <laughs> di la ñaanal yàlla defal la jàmm ak salaam sutura yàlla yàlla defal la ijaaba yàlla yàlla defal la xabul ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen mu ngi noonu euh, nii la rendez-vous di doxee tey léegi rek incha allahu moomoo daal di yegsi ñu daal di dugg ci yin daan dugg waaye di leen fàttali ni dimanche bi incha allah taala xam ngeen ko mooy ziar général ziar boobu leen nga xamante ni kenn mooma ko ku dul cheikh al xalifa Serigne Babacar si radiallahu anhu borom ñaari bàmmeel yooyu le lam yashuru bi ghayaabihi fi qabrihi hal ghaaba man sakkanal xuluuba xalila waaye balaa boobu dee ndokkeel rek ci bésu euh, daaru bi nga xamante ni moom la ñu génn bu yàggul di ndokkeel Serigne Modou Kara Mbacké ne yàlla sàmm ko aar ko yàlla guddal fanam yéegi ko ci yéegu waayu baay ya yéegu waayu maam ya waaye di ndokkeel ki nga xamante ni moom moo de rakkam di taalibeem di maam Thierno Birahim ndaw ñëpp bég nañu ci moom ndaw ñëpp kontaan nañu ci moom ndaw ñëpp apprécier nañ ko ci wax ji muy wax ni mu rafetee maam Thierno ci dëggu gi mu dëggu ni mu rafetee maam Thierno ci ñàkk seexlu gi mu ñàkk seexlu njabootam maam Thierno ni mu rafetee maam Thierno jamonoy Covid bi dama dem daaru li ma gën a yéem mooy ku ko tàllal loxo mu tàllaloo loxo xàmmeewul loxo bu set xàmmeewul loxo bu tilim te damay wax ni ay nit buñ la yaakaaree ci yow ba njortu ci yow dem aljana ndax seytaane ku ko mën a topp dem safara kon jàppal ni topp nit yàlla dem aljana maam Thierno da gis ni seexluwul kenn te itam baax na ci nit yàlla mu bañ a seexlu kenn ndax nit ñi buñ la yaakaaree di ñëw ci yow yaakaar ci yow mbaax yaakaar ci yow njub yaakaar ci yow yoonu aljana ah cin bu naree neex bu baxee xeeñ waroo seexlu kenn ku ñëw war nga ko attan waaye bis bu ne maa ngi ci roon gi maa ngi ci suuf di jàng ay téere ngir lan li sa ay maam bind waaye boo ne bërit di jug bu ma la bëggee jox loxo ñi nga xam ne ñoo la gën a jege fël sama loxo ni ma mënoo jox loxo bi sëriñ enkañ te am na koo xamante ni daanaka at mu jot benn yoon lay gis sëriñ bi waaye bu ñëwee dinañ ko favoriser dinañ ko aj ci kaw dinañ ko teg ci kaw moom sax la ñuy bàyyi moom mooy toog ak sëñ bi moom mooy waxtaan ak sëriñ bi bu ko defee tabarakallaahu yooyu ñu koy bàyyi xel ndax pas-pas yëpp benn lanu waaye doole yu ñoo tolloowul waaye saa su nekk yéene bi mu am ci yow ki sori amu ko ci yow loolu la ñu jàng ci maam Cerno Birahim borom daaru ñëpp a ngi koy bëgge ñëpp a ngi koy kontaane TikTok boo dugg tabaarakallaahu gis fa maam Cerno ndaw ñi di jël ay ay vidéom di ko def ay challenge parce que lan moo tax ndax tey li muy wax ci ndaw ñi jàng leen bëgg leen seen ay way wayjur topp leen seen ay wayjur fonk leen seen ay wayjur loolu lañ koy doy waaye di jaajëfal bu baax a baax euh, kii nga xamante ni Euh, gëm sa bopp di Bougane gay Dany Bougane ñoo ngi koy ñaanal 8 mars bi passé mat kilifa cër la loolu sëñ Ahmada si Jamil di wax waaye mën njaboote jagle yàlla la nekkul ku mat kilifa rek mën ngaa njaboote Bougane mat na kilifa waaye 8 mars bi gis ngeen keroog jigéen ñi nga xam ne ñoo ne fii ci kër gi bàyyi na ay yitteem yépp avant muy dem daaru ñëw savouré ko ak ñoom bége ak ñoom ci li ñuy lekk mu lekk ci ci li ñuy naan mu naan ci waaye jël teraanga def ci ba pare béggalante ak ñoom saafante ak ñoom ni ay camaa ngi noonu ilaa daaru moxti noonu la déparé daal di dem daaru moxti kon tabaarakallahu moom ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax yàlla yokk teraangaam yàlla yokk suturaam nuyu bu baax a baax euh, Cheikh Gueye sopp nabi ca Thiès bay Cheikh ñu ngi laa nuyu sama mag ju baax jooju la di magu Mor Gueye sopp nabi nekk nit ku baax nekk nit ku tedd nekk nit ku yiw bàyyi leen ko xel dimaas la boroom dàkkantal yu bari yi mu ma wadd mu dama bëgg nga yegsi da ngay fayu <laughs> ndax ajjuma bi paase <laughs> maa nga woon ca Cheikhuna Ahmad Tidiane Chérif ndax ajjumay tey ji faw nga yéexantalu faw nga wan ni ma oustaz bi paase ma fi nekkoon mais bàyyi li ngay def nga ñëw jege si tabaarakallaahu MD maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax yow ak ah, sukki ñaanal leen waa Résine ñaanal soxna ayda bu Serigne Babacar si ci taxawaay bi ma am ñëw leen ay ca heure bi jot na ñaanal Pape Diène loolu nag dama ciy def entre parenthèse waaye incha allahu taala dimanche bii la ziar général ki ko moom mooy borom dàkkantal yu bari yi borom bone kaare bi borom sàkkar yàlla bi boroom léon yi Serigne Babacar Sidi Faagay Demba ma ci jawaar gis ngeen bu baax a baax euh, li mu way Cheikhna Ahmad Tidiane Chérif Serigne Babacar gis ngeen tabaarakalaaw loolu nga xamante ni way na ko euh, ki nga xamante ni mooy bàyyam Cheikh Seydil Hadji Malick si waaye ak li mu way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teewul rek ñaanam leen rek la mooy di ñaan yàlla doon taalibe Cheikhna Ahmad Tidiane Chérif inni arju mawtan karaman bi tarixatina neamal amalo ñooñu ñu am nag nañu taxaw réew mi Sénégal toll na foo xam ni dafa mel ni ci kaw yi ay xàmb lañu ko tabax wala Sénégal dañ ko tabax ci kaw toolu poobar boo duggee ci TikTok bi jamono yi may wax ak yow sëriñ su bari ñoo génn wax ndax boo génnee wax di nga gis ku amul benn pas-pas te pas-pas dafa am doole làqatu fu sori di saaga mag ñu ñu am di wax ci ñoom wax ju ñaaw <laughs> léegi comme aljuma bi passé ñëwuma woon ajjuma da ngay defante ak man toog ba heure bu la neex nga daal di ñëw ñëw ma oustaz da ngay commencé <laughs> tttt bàyyi leen bàyyi leen lépp too faytoo loolu du àdduna bàyyi leen bàyyi leen lépp too faytoo loolu du àdduna jamono ji booy xool Sénégal da ngay wax ni ñiy jaay diw sax ko lëmbe ci TikTok bi wala ñiy jaay saabu kenn ku ne yaa ngi xëy di wax mu mel ni réew mii ñu di def loolu amuñu ay yaakaar ay repère ñii njabootu seexul xadim la ñu radiyallahu anhu sëñ Saaliw la ñuy waat wala sëñ Fàllu yaa oustaz yaa ngi ci jaaykatu saabu yi tey nga ne yaa ngi ci saabu yi mais moom moo réew mi suñu toll hmm. noo def tok bii waaw li nga sol fa rafet ci laa dëkk nag sol lu rafet mais adduna bi passé ñëw moo tax dañ la naan moo dàq sol lu rafet ci réew mi dëgg la de. nga jaay ko saabu yi ginnaaw percal mais moom moo Sénégal. Eh, eh. ñooñu di ko waate. waaw sunu sëriñ si la ñuy waate. dëgg la mais sëriñ soosu ñoom kenn ku ne am na ci koo yaakaar. Hmm. moom dem nañu ba xoolal xew-xewu diine yi kenn ku ne ci ñooñu da ngay def lu mel ni. Hmm. anytime ci bisu xew-xew yooyu. moo xam hmm. appel la moo xam màggal la moo xam gàmmu la ah dañ ci woote ay nit wanewu te moo ne ñoom ñooñu am nañu ñu ñu yaakaar lan moo tax ñooñu mënuñu wax ak ñoom. leen yar bi. dal gi mhm. kii ngi jug seeti kii mhm. kii ngi def lii léegi moomoo sëriñ ci ñemeetuñoo wax parce que xam nga lu tax mhm. ndaw ñi ñi yaru bareetuñu te pas-pas dafa am doole mën nga wax ci sëriñ bi naka sudul noonu yàq pas-pasu taalibe dañu obligé noppi ñun ñii di wax ak akus néew boo ci waxee léegi nga gis ku génn ku la waruloon yàpp yàpp la saaga la mais da ngay yor melokaanu yonent bi bi lislaam ne càppet mu woote wa ba'da sabbin ñii dañ koo saaga wa tadlilin wa tasfihatin axfaw lahu kulla ma axfahu min idabi am na koo xam ne émission bi léegi mu commentaire ci yow négatif. dëgg la loo ci mën. mënoo ci leer namoon naa la de. <laughs> <laughs> Eh, naa la nag. waaw parce que weer bii ñëw dina métti ci yéen mbayeen ñi. koor gi waaw dina ci yéen de. non commencé naa hmm? am na ñoo xam ne dañ lay teel a yónnee. ñaari hmm. xale yu sawar yi ñu la jàpp nañ bis nangam. dëgg la de dëgg la de. jàppal la bés. moomoo ragaluma koor. grand plateau laa fi pour boo bëggee dégg dëgg rek ragaluma koor moom moo ragaluma koor de. déggoo déggoo ala déggoo moom mi saa ngi ci groupe bi. waaw moo tax kenn tontuwul. Eh. ñi xam est-ce que xam nga ñen ñooy tontu remarqué woo. ñi dul ñëw dama lii rek te daat. xam nga ñen ñooy tontu moom mi. te daf ñuy seetaan. Eh. xam nga ñuy tontu. Eh. mu tudd dof bi. kan la. waaye lu ma waaye lu ma dala dalati waay Serif Thiam. moo moo ne ci groupe bi di tontu kuy waxaat. Serif Thiam du ñoo gën a plateau. kenn du wax du du way du firi. kenn du wax de. mu moo xoolal ndogu ba pare toog sa kër jàkkaarloog télé moo dàq àdduna ak ci biiram. mais yow saa yoo lekkee sa kër télé nga koy reesalisé. balaa ngay jógee sa télé. trois heures du matin xëdd jot nga egg sa kër xëdd jot. mu moo nga nelaw ba di nga yeewu dem lijjanti ndax sa ñaw pare na am ñaw parewul balaa ñu naan la pare na ndogu jot. kooru fitna kooru dëgg. yàlla baax na nañu bégal téléspectateurs yi rek man xam naa. man bii du ma mën a bokk GP bii. sañoo lool déedéet du ma mën a bokk. fi ma jugee léegi bu ma leen toppoon du ma bokk. <laughs> déedéet du ma mën a bokk bu baax ma woo léegi. ma lu neex ma ne ko loolu koor gi dafay xaw a teg. Hmm. nanu changé rek. dama bëgg dem fi nga demoon fi nga jógee fan yi fa laa bëgg dem. allahu akbar. ah kon neexoon na. mu mu ju. jàpp laa gaaw <laughs> jàpp la moo gaaw. ah ah dama ah ginax kat bu gisee lu ko ñor. ginax boo ko bëggee fiir tegal fromage. dëgg la fi nga demoon neex na de. bu ma fa mënoon jaaree dëkk fa laa jaar dëkk. yaa ngi mel ni ku jógee ci maam Ndiaye Savon nii de da jàpputee jàpp tee de ah nañu wax ne dëgg nag oustaz jàpp nga tee nag. wala kay seytaane la. ah dëgg la de yaa ngi mel ni ku jógee ci maam Ndiaye sabo moom foofu dafa sedd ba sa gémmiñ jigéen ne saxaar. foofu de. moomoo doo daje kun la sa waay ñaata nga ma war a delloo. dëgg la de. moomoo est-ce que xam nga ni bari na ku génn àdduna. Hmm. xalaat boro ko rey. moomoo hmm. naar du sangu. boo demee Maroc nga koy gëm li tax dun sangu mooy dun tilim salte wunu dun tilim moomoo une semaine mm. doo xaji suuf mm-hmm. sa daalu du jël suuf mm-hmm. doo xuloo mm-hmm. doo xeex koo romb boo yàqamtee mu xajal la nga jàll boo duggee ci bitig di jënd ñu taxaw di la dégg te li ma gën a neex Maroc moomoo looy jënd da koy ñam ba noppi ah, ba mu des luy reyee dëgg la de foofu neex bu moo di xalaa bëgg dem ci weeru koor gi mbay Diop Jamil mu baax mi bàyyi leen GP leen rek ma dem Mbaye Jamil waaw damaa may billet ci koor gi booboo ma gën a naqareeti te xam naa ne du ma mën a dem ci koor gi xalaa ñu muñ rek Mbaye Diop yow da ngay dem day xool moom mi bu ñu génne ñu message daf ñu seetaan dara du ko raw ci kër gi moom mi léegi ngay génne moom moo dégg naa da ngay dem Maroc non loolu mënul nekk moom yaa war a maye xaalis bi <laughs> dimbali leen ñu koor gi ngeen yokk heure bi ñuy commencé minuit. moom moo sa kër ngay ndogoo balaa ndogalee rees billaahi wallaahi tallaahi laa la waatal commencé minuit pare quatre heures du matin di moo gën parce que boo yeewootee ba ndog au maximum di nga toog sa kër benn deux heures de temps hmm. moom ñun ñi dëkk fu sori ay parcelles ak ay yëmbal yi nga xam ni dangay ngay ndogoo ba pare di daw di fitna ci kaw tali bi. mais yow dëkkatoo foofu nag arrêté la. ñaari kër laa yor. arrêté la nga dëkk ci wetu renfort bi. a fii ñaari la fi ba yëmbal. yëmbal da mbay ak yëmbal. Ah, su ma neexee ni golf laa dëkk. yaa dëkk. golf laa dëkk fa laay jógee di ah dëgg la fii ku nekk na nga wax fi nga jógee rek ñaaw na kay ba fii na gën a ñaaw rek oustaz du dëgg. nga ni foo jógee yéen ñi ne risi xanaa man rek maa ne ci plateau. nga ni du ngeen jël moomoo <laughs> ngeen dañ la namoon Eh, ajjuma bi passé dégg naa neex na de. dañ la namoon waaw ajjuma bi passé. sama rakk bu baax nga invité. Mhm. sama rakk la dañu déggante. jaamaan ah tout le temps dañu déggante ñu waxtaan bari. dafa bëgg xam-xam moom baax la moom dafa bëgg di gëstu. taalibe la moo ko soxnaam. Mm, waaw ay taalibe lañ ñoom. ay nit yu baax lañu damay déggante ak ñoom lu bare bari ay nit yu dëggu lañu. Mm-hmm. mais oustaz amoo loola jaaxal yow. Hmm. koor gi buy waaj jot seen nii rek réew mi ñëpp changé. xale yu góor yi nekk ci jàllaabe yi xale yu góor yi jigéen ñi tàmbali yaa tab tab gi muuru gi kol commencé jàng jaaxalu la ñëpp changé. moom est-ce que xam nga ni yow mal xiyaam sax eh, Sénégal. Eh. bu ndekki woon yor jikkoy naar. wala nitu ku jëm aljana. bala ngay xamee ñi foo dëgg ci réew mi ñu ni koor gi des na deux semaines sama xeet gi. waaw moo est-ce que xam nga ni nit a ngi yàpp yàlla. Hmm. nit mu ngi yàpp yàlla. Hmm. yàpp gu tool ni damay tëj saison. très important le 18 bi leen ko bëgg tëj. Hmm. koor gi kañ na le 22 laa dégg samedi le 18 bi samedi 18 dimanche 19 opération tëj saison moo xew fii ci Sénégal foo ne. Momo dëgg la bi nga ñëwee yàggu yaa ngi ma ay waay ji man damaa tiit sax Momo yàlla. moo la wax ni la bésu kooram gi di nga ko fekkee fa euh, ala axiral anfaasi daawim bi fikrihi Momo Seydil Hadji Malick nee na. yow mi nga xam ni da ngay noyyi sa xool di xalaat sa dernier noyyi bi ngay noyyi wuyu sa borom. naa dégg way bees bu ñu génnee avant koor gi. du resee xam nga daaw après koor gee génnoon <laughs> xale yi loolu la ñuy wayandoo avant koor gi. waaw xale yaa ngi tëj saison bi est xam nga ni nit buy dugg ci koor. Hmm. mu ngi wane yàlla ñàkk nagu kooram mais li ñàkk nagu koor di yées yées bu koor jeexee. Hmm. mboolem ku def soirée lendemain korité. ndewonal hmm. mboolem ku baal lendemain korité. waaw wan nga ni yàlla résultat bi ma génn gisuma ci sama bopp. xam nga lu koor la signifier hmm. laallakum tattaqun yàlla nee na hmm. xëy na boo wooree la première ba la trente hmm. yow mi doon wax naan mënoo bàyyi cigarette nga mën koo bàyyi sept heures du matin ba huit heures ci guddi loo ci góorgóorlu jaar fa bàyyi ko wax naa ko MD léegi la yow mi naan sàngara diggante sëtt parce que léegi lay tux cigarette ma ne ko bul ma xeeñal muusal ak sa cigarette ñaar ñu ne rési xam nga lan laa ko wax ñu may dugg ma ne ko yow bu nit ooyofoon billaahi ko tux <laughs> moom de MD sa baaraam yi lay téye nii di ci foofu ma lay leer ni <laughs> nii nii MD nii lay téye sa baaraam yi laajal euh, nu mu tudd séena bu moo la jiital bu koo taal mu may leer ni bu bu bu oyofoon mu taal <laughs> ma ne ko MD mu ne ma ñaanal ma ba bàyyi tuux ma ne ko dinaa la tontu li ma tontu dem démb asma hmm. papa ñaanal ma sama kilim bi baax ma ne ko kilim kenn du ci ñaan dañ koy dem defari <laughs> am na luñ dul ñaan mais cigarette duñ ci ñaan décision la pour ba ko nga ne asma lu mu la wax yow sama kilim ma baax ma ne ko kilim kenn du ci ñaan dañ koy defari moom yàlla si kilim bi baax. woo nga Nafi Ndié wax ko léegi. na Ndié daa am problème kilim. déedéet ndax woo nga ko wax ko li la asma wax. non non waxuma ko xam naa ko parce que démb gisante nañ. mu ne ma yow ak Momo ak Fall Ndiaga yéen ma gën a sonal ci àdduna man ko yaa ñu gën a fàtt ci àdduna <laughs> loolu la rek mais am na loo xam ni naankatu sàngara bi naankatu sàngara bi mm. nga xëy six heures du matin naanoo mm. ba dix-neuf heures boo góorgóorloo bàyyi naan sàngara moom est-ce que xam nga ni ku sa bakken not nit mun laa yóbbu aljana comme comme MD ni mu tàmmee cigarette bu mënatu koo bàyyi wala wala kii nu mu tudd keneen ki wala wala wala wala eh, nu keneen ki waxal keneen ki rek dimbali ma rek xam naa leen dañ may xam naa leen waxal euh, keneen ki rek euh, wala Formose waaw ah. ñooñu tey hmm. li nu tam hmm. buñ ko mënta bàyyi seen bakken la kenn mun leen a yóbbu aljana wa nafsu ka tifli xanaa xamoo ni bakken ak liir ñooyam hmm. in tuhumilhu boo ko feralul sabba day màgg ala xubbi radaa ci bëgg nàmp xale day xëy li muy bëgg-bëgg ween deux ans lu xamul lu dul ween nga xëy dénk ko sa yaay dëgg la de ni yaay téel ma ko dama koo feral mm. bu toogee une semaine deux semaine fàtte na ween bi waaw bu dee xale bi sëgg ci ween ñaari at te yàlla nee na moom moom nit ñi nañu bàyyi xel waxu yàlla yàlla nee na muy góor muy jigéen santuma la nga nàmpal ko un an six mois waxuma la ko lu mu lu mu wax moom ñu ne yàlla un an sept mois mu ni bëgguma un an huit mois mun la bëgguma neuf bu ma neexoon ëmb doon dix ans ëmb ci biir bu ma neexoon mu ne dix ans neuf mois laa leen ko defal xale bi judd na yàlla nee na wa atimu ridaa matal leen nàmpal gi ñu ne yàlla loo bëgg mu ne xaw lay ni kaami lay ni ñaari at mat sëkk ci góor comme ci jigéen ci jigéen ñaari at la yàlla wax ni nañ leen nàmpal mm. wax naa la bu yàggul ne la wërsëg da nga koy xam ci doom dëgg la bàyyi ko ci njëkk mhm. te génnewul la muy génne mhm. bu ko doom génne kon doom moom moom wërsëg gi parce que bàyyi lekkoon na basam ba muy gone mhm. mën ta màgg day lekk sa bas déedéet mais ça ñu dem ça ah déedéet ça dépend xanaa xamoo doom ak bàyyi mën na ñoo bokk wërsëg bi foo ne a ah, dëgg la di <laughs> ah yàlla bëgg dëgg la bëgg doom ak bàyyi mun na ñoo bokk wërsëg yow kii day fer géejal ah dëgg la de. non da da nga naan dañu bokk jëmukaay waaye duñ bokk wërsëg ndax bu kee bu doom di fer yàlla di tëjaat raakool wërsëg la de mais yàlla ay tëjaat raakool bi waaw ni ko am na keneen ku war a ñëw dafa war a jëlaat wàllam beneen raakool bi mu fay teg a daaq boobu raakoolu bànneex la tudd moo ne rés bi yaa ngi dégg am ci rés foo ne sukki yaa ngi dégg sukki yaa ngi dégg dégg nga ah, dëgg la de te ñoom ñaar ay célibataire lan de dëgg la te li nga wax ñoom ñoo la ko gën a xam ah yow ñii léegi xam nga kuy seen sponsor li de hmm. nuur laa dooy dégg nuur laa yow maa ngi koy dégg ci benn waay ju neex a neex a laa maa koy dégg ci waay ju neex a neex namp ñii doo koy dégg doo koy dégg ci yuusu laa ko déggee <laughs> léegi oustaz nga ni mu ma xoolal koor gi jeex yaayu yàlla ni yaayu lazina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala lazina min qablikum mm-hmm. farataal naa ci yéen koor comme ni ma ko farataale ci ñi leen jiitu woon mm-hmm. ñun yàlla loo bëgg ci koor mu ne résultat ragal yàlla mm-hmm. koor gi jeex lendemain bi nga def soirée góor quinze mille jigéen libre mooy yow mi amut kilifa <laughs> kaay homme quinze femme. libre sur surconsommation. surconsommation. dëgg la de. am na waaw waaye léegi xoolal jigéen ju ñàkk kilifa kilifa ñu bindal la. femme libre dëgg la de. mooy yow comme libre nga. Euh. të nga sa ndey të nga sa baay yow mii lan soxla kaay comme yow libre nga kaay da dugg. lan demee korité nga delluwaat ci li nga nekkoon yàlla ni la kon yow sentiroo benn résultat li nga woor kon jarul woon ngay woor. lii nag da nga ko dencaloon nga ni femme lan. libre homme 15000 femme libre. waaw léegi imagineel mbooleem jigéen bu libre bu të sa wayjur yow am nga priorité dugg euh. non góor a sonn mu euh. moo est xam nga ni jigéen bu njëkk bu mu saan juddu dañ koy gas ba mu xóot suul bu njëkk avant yonent bi ñëw wa isal mawudatu su ilat bi ay zanbin xutilat jigéen yàgg naa sonn dañ leen daan gas suul hmm? xoolal lislaam ñëw hmm. Omar ibnu Xatab hmm. mooy ñaareelu xalifa yonent bi gas na doomam ba mu xóot mu suul moom Omar Omar daan na toog di ko jooy naan li ma def sama doom mooy ñàkk a teel a dugg ci diine ak ñàkk xam yonent bi bu ma ko teeloon a xam doom ji dina am taxawaay ci man te ki ma ki ma suul ak moo amoon cofeel ci man ba bi may gas di ko dugal ci biir suuf si maa ngi sentir sama sikkim takk suuf mu ma koy xasal ndax cofeel ma koy maasaale di ko maasaale ba gisatuma ko yoon boobu sax bëggatuma fi di jaar ndax suul bi ma ko suul léegi xoolal jigéen di exagéré l'islam ñëw di leen sagal moo tax yonent bi daan wax naan yaa ni saa yi tusaddaxna walaw min xuliikunna dee leen saraxe bu ngeen déggee sama tur wi donte seen takkaay yi la hmm. yonent bi bu ñëwuloon moom moo jigéen ñi foofu la ñu mujj kon ñun duñ am duñ gën a àdduna kon ñun duñu duñu judd de duñu yëg bànneex duñu judd de mais xoolal dafa xaw ma opposé wu la ñuy wax ci jigéen ragal leen yàlla ci seen ay jigéen di leen dénkante ak ñoom lu baax dem ba yàlla di wax ni même jigéen boo ko fasee bàyyi ko mu jàpp idda trois mois ci benn néeg bi ngeen di fanaan yéen ñaan cofeel mën naa ñëwaat. dëgg la non day ñëwaat la allahu yuhdisu ba'da am amran yàlla nee na xëy na sax bu ngeen de doxalee ba ci kanam tuuti. Mm. seytaan dafa bari doole mu moom. dëgg la de koo mënta muñ muñal ko. Mm. xanaa xamoo ni ñaar yi. Mm. ku koy defar nga koo waaj. gedd bàyyi télé. ak fase sa jabar. moom moo bëri du ko def. gedd lan bàyyi télé bàyyi télé. <laughs> xëy rek. mer rek ba. tax nag dama bàyyi man. la illa moom moo looy bàyyi na fexe nga am ci loo jàpp. man dama bëgg bàyyi. Ah, yoon baa ngi noonu. dama bëgg dem waalo toog. dama bëgg dem daal ca tool ya ah di bay ceeb yaa ngi dégg di dundee ceeb pataas xëy dem ci dex ga nappi ci yabooy gi ñëw teg noonu di ko loolu bañu ma ko damaa xam li ma naqari mooy koo xam seen fii ci ndakaaru lu mu yor xaalis na la koy ne nga jënd garab ndax yow attano climat ba fa ne pourtant attan naa ko de. waaye waaye moom man maa fi déparé yeeg ci oto kilim ànd ak sëñ Ahmada jëm Ndar. Hmm. ñu dem ba Louga ci benn station ma bañ a publicité. Hmm. neexaayu oto bi bi ma nee cëpp wàcc ci station bi damaa feebar ci saa si ndax climat bi. fa lañ la perfusé. ah ma feebar waaw léegi xoolal ñëpp dëkk ngor gi ñu amee. Hmm. moo tax seenaa Omar Ibnu Xataab daan wax naan yàlla maa ngi lay ñaan koor. yàlla doon jamonoy tàngoor. ah lu tax loolu. danaa wax naan ikraamu dayfin lu ma am teral gan moo ma ko gënal. wa sawmu fi sayfi ak weeru koor bu tolloo ak tàngoor. yàlla ñu ngi lay ñaan koor yàlla na nekk seddaay. moo tax de wooree ji ko Maroc yàlla ay kese fane de. ñoom ah. Modou Dia sama gaa yi ne foofu ñoom Modou Dia ak soxnaam ak ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar. Omar ku ko ñaan laa wax moom Omar kan moo ko ñaan lool lool. te xoolal bi mu koy ñaan kilim xewul. ah congélateur xewul. frigo xewul ventilo amul ëpp moo amoon. Màkka nekk dëkku xeer Medinatu Munawwara xaw a tane. ñoom ñu ñaan koor nay nekk tàngoor ba seen tuñi di xar waaw waroon nañoo xalaat. yow est-ce que xam nga ñaata ñooy jar jamonoy koor. ñaata ñooy. yan ak yan ñooy gën a jar koor. glace. déedéet koor ba ci luy gën a jar. uppukaay socc ak uppukaay. mantelatu uh-huh. ak ak montre moom moo koor nit seconde mu ne fa. dëgg la trois heures. Mm. Oh, ngi ci horloge. moo nii ngay def nii. Mm. xool trois heures quatre heures cinq heures des na trois heures de temps quatre heures cinq heures des na deux heures de temps six heures sept heures léegi na ko jot. xoolal diggante cinq heures ba timis ñëppay naqari deret xale boo yónnee mu mer bay jooy mag moo romb fel ko mu sippi la koor gi moom moo yàlla bu seen taanewuloon koor sëriñ di ko santaane di nga gis taalibe bu bàyyi sëriñ bi démissionné dem fekk beneen sëriñ dëgg la est-ce que xam nga lu waral koor lu ko waral mooy pause machine sunu téléphone yi dañ koy manipuler ba mu tàng yàlla ni yéen a ngi lekk suba ngoon takkusaan timis geewe bu ngeen wooree huit heures sept heures du ba dix huit heures dix neuf seen organes yi mën a noppalu fonctionnement yi mën a vide bu ngeen paree yàlla ni leen dinaa leen jàngal nag àdduna mbaa yëg ngeen ni àdduna bi ngeen nekk bànneex a fi gën a gàtt naqar naqar a fi gën a yàgg mm-hmm. moom moo da ngay xëy six heures du matin doo lekk ba sept heures ci ngoon ñu tegal la ay lekk pendant quinze minutes mu fees sa biir ba dara mënatul a dugg pare nga ci tàndarma café mm-hmm. mburu sa biir dara dootu mën a dugg yàlla ni la dama lay wane la àdduna ba mm-hmm. mënta dégg mooy naqar yàggul loo jënd gaz bu bees tàq taal ko muy jëfandikoo ñun la toog ci loo muñ mu jeex balaa gaz bee jeex yaay jeex. yaay dëgg la dëgg la ça veut dire que loo muñ mu jeex dafa am benn concept. di nga tàq ba jeex de. loo muñ mu jeex. Hmm. bu fekkente ni jigéen nga. nga hmm. moo di sëy ak góor bu baadoo la. Hmm. xamul njëkk xamul teraanga. lu lay toroxal rek la nekke ñun la muñal loo muñ mu jeex boo moytul sa ay doom du ñu am barke. parce que ay doom pour ñu am barke faw yéen ñaar ñuy jaxasoo kenn ku ne di yëg bànneex ak mbégte ci xolam ngir seen ñaari ndox bu ñu dajee ki nga xam ne moom ngeen di sos mu am lu mu jariñ bari na doom doom joo xamante ne bunt bu mu fëgg mu tëju lenn li mën naa nekk ci ndey waaye li mën naa nekk ci ndey ak baay mhm. yenn saa yi nga gis doom joo xamante ni une deux trois mer xeex nangam nangam fekk attention de mu nga déparé ca sosu ga mhm. ak yoo xam ne mënuma la ko wax parce que day dal ay nit yoo xam ne boo ko waxee lor leen mhm. waaye bu bu bu émission bi jeexee dinaa la wax ni la doom nangam heure nangam bi mooy tax mu sosu doom nangam bi heure nangam bi mooy tax mu sosu dafa am ay ay heure la mu moo digg bëccëg bu ci nit di sëy di jàkkaarloog jant bi bu ko yàlla dimbaliwul bu amee doom mën naa doon sàcc digg bëccëg waaw jant bi et pourtant am na ñuy wax naan c'est le meilleur ci kan ah am na ñu koy wax mais meilleur moment mais ci néeg waa ci néeg ah boo jàkkaarloog jant bi wax nañ ñi booy sëy ak soxna nga jàkkaarloog weer wi ak biddéew yi boo moytul boo ci amee doom mën naa nekk noonu yàlla ak yonent bi ak yoo xam ne mënuma ko wax ndax ñi ñuy seetaan damay wax ne am na ñoo xam ne gis nga ah kon kaw jot nañu fermé ko de suñu bàyyi Abdoul Karim Moro Makarim al Akhlaq kaw terrasse dafa ñuy seetaan bu waxtu wi jotee dëgg la ñu ngi koy nuyu bu baax suñu bàyyi Serigne Abo bu Serigne Fallou daf ñuy seetaan bu waxtu wi jotee ñu ngi leen di nuyu bu baax ñuy seetaan bu heure bi jotee mm. euh, euh, euh, Jamil mm. daf ñuy seetaan bu heure jotee moo tax yenn wax yi ma koy mm. rafetal mm-hmm. yenn wax yi mm-hmm. ma koy rafetal mm-hmm. mais dama la wax ni la moo ñi ku ñuy seen ba seetuñu ma dama lay wax ni la heure yooyu ci la nit ñi di rawante dëgg la rawante boobu nag doom yi léeg nga gis booy boo xamante ni ba yow mal xiyaam moom mooy teg attaaya koñ bi ah, may ma foofu ma ñëw eh, eh, maa di ñoom ñoom ñooma ñoom ñana kaay leen kaay leen ñëw leen fii moom bone étudiant étudiant en sud yi qui parle wolof Oui, bien sûr. Comment va les affaires Ça va, ça va. Ça, ça va Vous allez bien euh, Je suis d'une part un étudiant. Alors Bonjour, tu parles français Ça va bien. Comment va les affaires Les femmes, ça va Ça va bien. Tu fais quoi dans vos vies Galiko Tu fais quoi regardez Il faut tourner comme ça. Voilà. léegi laaxanteel ak ñoom tubaab attention léegi laaxanteel ak ñoom tubaab oustaz. Bonjour, comment va Oui, je vais bien, merci. Tu fais quoi Euh, bon, j'ai fait beaucoup de domaines, ah. parce que le temps ne nous permet pas. Mm. Bon, du pas, je suis un étudiant à l'université Cheikh Anta Diop. D'accord. J'ai fait la physique chimie, sciences de la matière en L2. Hmm. Euh, cette année aussi, j'ai eu à m'inscrire à l'Institut Pafic. Mm -hmm. Je suis le, euh, le transport logistique également. dégg nga lim la wax yëpp. ñii bu nu màggee. dañ doon Ndiaga <laughs> transport logistique la wax. il y a quoi le transport logistique xam nga le transport logistique en ah, logiciel ah, avec les ordinateurs oui bien sûr <laughs> cat laay wàññi rek dëgg la de li ma na li nga xam moom bëri à Kolda d'accord dans je connais bien ah? je connais Kolda il y a oui. des filles euh, très belles mm là-bas il y a des filles il des filles des très belles parce que j'ai visité ça. yow très belle fille rek moo fi intéressé Kolda. parce que parce que les col les Koldaoua les eh. Koldaoua. les Koldoua. et toi. moi je suis étudiant. tu s'appelles comment. Euh, ah c'est vraiment. c'est pas grave. à quelle nationalité. nationalité congolaise. ah d' accord moom sama xam-xam jeex na eggali. ah déedéet di nga eggali de <laughs> di nga eggali. vous parlez français. oui oui. à une gabonaise. et toi. sénégalaise. sénégalaise s' appelle comment. Ndeye Fatou Babou et comment. Khadijatou. Diakhaté et comment. Adja Oumou vous euh, vous comment. vous êtes des étudiantes. ak quelle faculté Eh waay Samba. Vous deux bañ foofu laay taxaw. <laughs> en tout cas merci beaucoup euh, étudiant ERSP Afrique yi ñoo fi jaaroon léegi doon visiter euh, kër gi doon visiter waale plateau bu rendez-vous ah faites un coucou à euh, nan lañ koy waxee sax seen seen waa classe yi. waaw à toutes vos familles. étudiant ERSP Afrique yi vous leur faites coucou. ah ñu ngi noonu. kontaan nañ bu baax a baax je salue euh, à tous mes compagnons qui sont à l'université Cheikh Anta Diop ah oui je ne vais pas les oublier maintenant tu es devenu une star <laughs> tu es sorti à la télé maintenant tu es devenu une star je suis encore un syndicaliste au niveau de la faculté des sciences et techniques ok surtout dans la liste des réformes donc c'est une chose à féliciter à magnifier mmh. parce que hmm. c'est eux qui m'ont formé surtout okay. avec le nom de caporal mon coordinateur donc euh, vraiment mmh. je ne peux pas parler en l'oubliant il faut tout le temps de, de se rappeler de lui vraiment parce que dégg xam ni syndicaliste la <laughs> nii lañ mel. Hmm? parce que c'est quelqu'un qui me soutient toujours. Oui. vraiment donc hmm. euh, je, je vous félicite ah, alhamdulilah. C'est votre première fois la télé? Oui, oui, effectivement. Ah. Ah, vous êtes tous des stars alors. <laughs> En tout cas, merci beaucoup d'être passé hein. Allez, merci beaucoup. Allez, bien des choses à vous. Allez, oustaz, tey laa xam ne nag vraiment euh, doo nitu fii. Moom man nag yow nga doon xam ne du ma nitu fii tubaab di ma fay. Hein? Ah man tubaab fayu ma. Dëgg alxuraan amay fay ak diine. dëgg la de tubaab lu ngeen am ci man jël leen. Hmm. mais tey xoolal bari na fi ñoo xam ni maa leen dàq làkk français. dëgg la xam ci réew bi ay nit yu siiw. xam naa la ba ci ustaas yi may dégg nii. Bougane juum fi keroog le 8 mars bi maa ko cotisé. lu mu wax. dafay jaawale elle ak vous. Hmm. deux fois ma cotisé nga ne ko lan. man ko li nga wax du noonu. Hmm. man ko phrase nangam. vous lañ fay dugal. te yow def il te ñi set êtes des femmes ah. mun ma d' accord am na lu mbox wax ban ma parfaitement raison. <laughs> yow ah temps yi am na oustaz bu la ni Mouhamed Mbaye bu jógee seen TV dinaa jël place bi ngeen ko naa fexe ba génneel ko sama yow ah man kay dama lay déglu rek am na ko waxal de aaral ma léegi du la jël waaw ah, dama koy message loo koy wax léegi dama koy <laughs> ay waay ngir yàlla koor gi di ñëw sell leen. yàlla baax na mais oustaz nag il faut ñu taxaw ci euh, parce que tey dama bëgguñu ñu waxtaanee un peu tëj saison bi après waxtaanee waat euh, vendredi bii di ñëw yi am ci biir koor gi waaw parce que tëj saison moom foog ñu waxtaanee ko parce que gars yi week bi la xale yi commencé jël ak week bi ci topp pour fat ñoom fatt lañu ñu wax. su fa safara tàng wala tàng. dañuy fatt fépp. est-ce que xam nga ba fa tàng yam bu neex ni safara mel. Hmm. yan naan. xanaa xamu ni waa safara dina mara naan ba yuuxoo ni yàlla may ñu ñu naan danoo mar malaaka bi ne safara maalik may ñu ndox hmm. xam nga lu mu leen hmm. ñaari ndoxu njaalookat yi daje hmm? la ñuy jël di ko sotti pour ñoom ñu naan ko moomoon ndox moomu day xeeñ da ñoom dañuy jël seen xar yi di ko fatt ci safara si ngir bañ a naan ndox moomu la ilaha ñu ñu naan danoo mar waa safara may ñu ñu naan danoo mar di ko wax Malick Malick mooy garde safara hmm. day jël ndoxu njaalookat yi di leen ko jox pour ñu naan mais bu ndox mi déclenché ñëw xet gi muy xeeñ dañuy jël seen xar kanam yi di ko dëpp ci safara si ngir bañ a naan ndox moom xam nga njaaloo baaxul baaxul neexul ah, ah. xam nga li ngay tegoo ko fenn <laughs> njaaloo daal baaxul loolu daal xam naa ko <laughs> ah, leneen nag moom waxuma ko waaye daal xam naa ni njaaloo baaxul lii daal man nangu naa ni baaxul <laughs> ah dëgg la ah, di <laughs> ah. nee njaaloo baaxul neexul. mënu ma daal baax. dëgg la as neex na de. bisimilah <laughs> neex ma ah, moom day. auzu billahi mina en tout cas xam naa ni. mais am na koy def te duñ ko tey xam nga ñan la. Ah. mooy ñi nga xam ne saa yu ko defee dugg ci duus bëgg seen bopp. mooy sama xeet bi man man oustaz man njaaloo bëgguma ko man du ma ko sax def man bëgguma njaaloo daal. dégg xam ngeen fu ñu fu ñu mujjee ak bàyyi. dégg dégg damay mujjee bàyyi dégg leen. du ma leen faale ku ñu déstabiliser li ñu. <laughs> Moumou. oustaz man bëgguma ñaalo. xoolal saa yu ko nit ku mu neexul. Hmm. saa yu ko defee bu duggee ci toile day jooy. day bëgg a béj boppam moom am na ñoo xam ne dañu leen liggéey def leen ko. am na ñoo xam ne rab moo leen koy def loo. Ah. am ñoo xam ne seen bànneexu bakken la. am ñoo xam ni euh, euh, gis nga di nàmpal. am naa ay jarbaat yu nekk kër ga ñoom dama leen di gis euh, bu ñuy génn ci douche bi dañuy seen rangooñ dafay nekk seen bët yi mooy ñoom jibi ñoom biraan ñoom papi sama rakk yi ñoom xaw ma daal est-ce que. du ko la donc. comme ñoom waaye li wér-tóor mooy gis nga moomoo boo ko defagul doo am jàmm. waaw ci li ma MD nettali. boo defagul lan boo ñaaloogul bu dee da nga am RD buy ñëw MD nee na ma bu ñëwagul doo am jàmm ndax lan di nga parfum di nga defar na yàqamti mu ñëw waaye MD nee na bu xasee ba ñëw ba nga juum njaaloog moom ci saa si da nga naan ko da am rendez-vous dootoo bëgg a toog ak moom ah loolu yëf baadool la MD mii wax na ma ko waaye nee na bu ñu jugee dem ba nga réecu ñaari fan ñetti fan nga bëgg cee dem miin na njaaloo ah mooy wane ni kon neex na looy bëgg delluwaat looy bëgg delluwaat kon MD xam na ni neex na xam nga MD moom mi koy def ba bëgg cee delluwaat man daal xam naa ni baaxul foofu daal mën naa fa yem. ah man xam naa ni baaxul parce que man du ma njaaloo man xaw ma sax luy njaaloo baaxul neexul ah, mais xam naa ni daal baaxul mu moo gis nga nit buy sëy ak ku ko lew ah. seen diggante ñoom ñaar ak lu ci mën a génne ci ndoxum bànneex hmm. dooy xet gi waaye ñaari njaaloo ko fu nu njaaloowee nga sentir xet bu naqari seen diggante hmm. yàlla bi muy wax ci njaaloo jigéen la njëkk parce que dafay wax ni jigéen mooy may sañ-sañ góor parce que moomoo góor ak jigéen bu ñu tëju woon ci néeg ku góor ki di yuuxu wooy wooy ñu ne lu xew mu ni ndaw si daf doon bëgg a siif bu génnee gars ko longu waaw yow yëmbal nga de yow yow jigéen tëjoog yow nga ci jigéen a yombe mm. mais bu jigéen yuuxu woon ci néeg ñu ibbi nu waa ji daf maa bëggoon siif ñëpp dañaan ko waay da ngaa ñàkk fayda waaye demal nga liggéey mm. mais bu doon góor moo yuuxu gaa yi dañ koy longu ni ko sa waay yow tàppet nga de yow ndaw si di la pourtant am na de ñoo xam ne seen oto lañ yor mën nañ laa ndax dugal la ci mm-hmm. wala ñu jëm la yóbbaale yóbbu la am na ñoo xam ne ñaata nit dañu ensancré xaw ma dañuy mm-hmm. tëj ensancré tëj leen mm-hmm. dëggal MD nee na loolu dëgg la dund na ko dëgg man mii dund naa ko ñu tëj la déedéet tëj yaa onze billahi mina sheytaan kon loo dund lañ ci yàlla musal tëj loo dund auzu billahi mina sheytaani rajim ah mais loo dund déedéet da nga ni euh, jigéen mun naa sàkku góor comme góor mun naa sàkku jigéen waaw man bëggoon nañ ma sàkku dama daw loolu nag boo ko defee nag sa yoon àjjanaa ngi xeeñ yàlla nee na aras aras MD dama daw yàlla nee na suufu aras hmm. dinaa fa keral xale bu góor bu mel ni mu war a mel jigéen dàq ko mel nu ko raw ni ko damaa bëgg ñun ñaar ñu jaxasoo mu ne ragal naa yàlla yàlla ni kooku suufu aras la fay dëkk man dama daw du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon yow kan moo am seede rek ci yow ku ma xam. ma daw sama yaay laa njëkk woo expliqué ko mun ma sant naa bi nga dawee lii de la ma sama yaay wax sant naa ci bi nga dawee. li ma naqari mooy sa yaay ak sa papa ñu ngi seetaan ñu ngi reetaan boo noo tuñoo tey seen bopp. woo naa sama papa yi di wax ko ko. mun la mun ma bi nga dawee laa xam ni sama doom nga. yow moom yow mosuma yegg sa oto. dama daw ah léegi léegi doo nga bëgg ca yéeg yow. non dama lay rek ni yow mosuma yegg sa oto. waaw yow yoon la wàcc du may oto man la yóbbaale ba nga ni ma dama yóbbaale diw nga yor <laughs> X one two three X three. joxe naa ko X trois. jaay naa ko. xam nga. jaay naa ko léegi maa ngi ak beneen rek. mais bañ ñu kar ma <laughs> ko yóbbaale ma mais moom li ma li ma li may bëgg di insister nit ñi di ko bàyyi xel. mooy lan. mooy yàlla xam nañu ni xam na ni ñun dañ koy tooñ. parce que bu ko xamul woon du ñu defal ay bët ñu xool. dégg naa moom dafa bëgg sax ñun ñu koy tooñ. parce que waaye ñu koy tooñ di ko baalu. xam nga xam nga gracier ak am amnistie duñu benn. dëgg la ñi xam droit xam nañu li may wax. lu leer nga wax maam aadama bi mu tooñee yàlla aljana. Hmm. bu dawee di wuti dara mu koy daw naan ko aadama mooy nga sa borom mm. bu dawee wuti leneen loolu di ko daw ni ko mooy nga sa borom mm. yére yi mu sol naaw mu rafle ci saa si solatul dara mam xawaa noonu mam mam aadama jaxasoo aljana mel ni ci moom yowmal xiyaam muy tourné di jaaxle mais heureusement que ni day gis ci coin yi ñu ci bind laa ilaha illallah muhammad rasulullah da daan gis étiquette yi euh, torson yi mm. di am étiquette bu ñu bind laa ilaha illallah muhammad rasulullah catu kuddu aljana yi laa ilaha illallah muhammad rasulullah bi mu demee ba sonn fa taabaan la inna wa tawaabu rahim mu ne yàlla maa ngi lay ñaan xaw ma fu may jaar ba ñaan la waaye sa tur bii di laa ilaha illallah mm. tur bi nga ci toftal muy muhammadu rasulullahi te xaw ma ko maa ngi lay ñaan nga baal ma ci barkeem yàlla ni ko foo ko xamee noo def ba xam mu ni ko xaw ma ko damaa gis turam ak sa tur dend yàlla ni ko lu ma waaye ñaan ci barkeem ma baal la ko ni ko dinaa la baal waaye dootoo fi toog parce que da a lekk lu am sobe te aljana du am sobe wàcc leen mm. waa xam nga ku leen génn aljana mm. iblis seytaane waa moom moomu ki fekk sa ñaari maam aljana mu génne leen yow mi duggagul yow yow yaw jaaxal nga ko mosoo koo jaaxal de sa ñaari maam la fekk biir aljana ñu toog mm. mu convaincre leen ba génne leen aljana yow mi musul dem mm-hmm. li ngay liir du neex ci yow dëgg la de kii nee na oustaz rey na ma na <laughs> fi yow lay wax rek imaginer <laughs> nee na kii s'appelle comment wax xale bi ngeen ne ko kii s'appelle comment <laughs> demal yàlla baax na am yëpp ma ci woon xel mais <laughs> non. Momo est-ce que yaa ngi xalaat Iblis. Euh. maam Adama ak maam Awa. Hmm. la nax ba génne leen aljana. kon ñun Iblis ñun tawuñ ko. tawuñu ko ba pare mu taxaw nag nii xam nga yoonu aljana nii la nii nii nii. Hmm. Iblis fii la taxaw fii. Hmm. yoon baa ngi nii rek aj loxoom ni yàlla afa bi maa awoyta nii. mooy. laa xudanna lahum siratakal mustaqim suma laatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wala tajidu aksarahum shakirin nee na yàlla man ngay man ngay jëndee maam Adama ak Awa. ma nekkoon ci sa service di dox. nga fexe ba ñoom ñaar ñi li ma leen ñàkk su jootal yow yàlla moo tax nga ni génn nga ma dégraté nga ma yàlla du ma deñ dama bëgg nga fay ma yàlla ni ko yow iblis man ngay fayeku man maa la wax ne la liggéeyal naa la fay ma hmm. ko lan nga may fay foofu rek xamante ni nit ku ne war nga am opposant te bañ ko la ku bind iblis yàlla bu ko taxaw ni yàlla damay jàkkaarloo ak yow nga fay ma te yàllaa ko bind moom iblis am na yàlla ni ko lu ma lay fay mu ni ko nga bàyyi ma dund ba yemal yàlla ni ko ak lan mu ni ko nga may ma ma dugg ci biir maam aadama ba xam ah nu mu tudd yenn place ci yaramam yi muy faible moom moo góor mën na laa yendoo def nii ba ngoontu la déranger. dëgg la de doo yëg dara. Mm. xale bu jigéen def la nii rek nga yëg ni xale bu góor ci ay secondes ay secondes. xam nga lu defoon. Mm. Iblis le les places de centime xaw ma les places sentimentales yi <laughs> places sentimentales yi. xam nga yow li ngay wax nii rek Iblis mun na nekk salaamiñ bi di ko génnee nii yi ngay wax nii. ngay les places lan. les places sentimentales. waaw ah, dëgg la. léegi imaginez place yooyu tey. Iblis fexe ba dugg ci doomu aadama ni inna seytaana yajri alal insaani majriya dammi. saa loolu point faible lañ les points faibles. waaw kay mais mooy place yi am sentiment. <laughs> dëgg la waaw. yaa ngi dégg euh. léegi moomoo Iblis dugg ci doomu aadama xool côté yi mu yëgee boppam yëpp. Mm-hmm. ay waay bu dul woon tere ma wax loolu yéeme. waxal loo xam ne amul nopp. waaye mm. booy waxaale muy taxaw. wax ma ko. du ko ah. amul nopp mais booy waxaale day taxaw di moom moo xoolal dugg ci biir doomu aadama iblis ba xam yëpp ni yàlla nag dinaa fexe ba gaañi seen kanam lay taxaw seen ginnaaw seen dayjoor seen càmmoñ dinaa fexe ba def leen ay engara wala tajidu aksaruhum shakirin dinaa bari dinaa fexe ba ñu bari duñ la sant xoolu ñun ci sunu nuyoo saa yi noo def yaa ci jàmm naka coono yi naka coono yi doo dégg mukk naka xéwal yi mm. naka teraanga yi doo ko dégg ci coono yi rek lañ dëkk de iblis lañu teg coono léegi nag maam aadama mm. ak awa wàcc yàlla ni ko gracier naa la faute baa ngi ci yow moytu ko defaat waaye gracier naa la de mm. waaye am na faute boo def de mu ngi tribunal de mu mm. moo àddunay dox àddunay dox àddunay dox yonent yi jaar fi ba yonent yàlla Muhammad ñëw yàlla wàcce ci moom sóoratul fatxi ni ko inaa fatax naa laka fatxan mubiina mm. li yaxfira laka llaahu maa taqaddama min zanbika wa maa taaqara wa yutima nicmatahu alayka wa yahdiyaka siraatal mustaqim wa yansuruka llaahu nasran azizan yàlla nee na ko am amnistie naa la mm-hmm. bàkkaar ba ñu toppoon maam aadama ci sa ñëw tax na ma baal ko ko sa xeet yi ñëw ci kanam bàkkaar bu nu mën a def yow yonent bi bu guddi jotee bu ma baaloo ma baal leen parce que iblis dafa jàpp ni ñoom bu ñu tooñee safara lañ jëm man yàlla dinaa leen ma benn jéggalu ma yóbbu leen aljana ci sa barke yow yonent bi hmm? kon ñun lu ñu munti tooñ rek bu ñu tëddee guddi jéggalu ak tooñ bi nu mu munti demee moo tax nit day maandu de hmm. doo gis waa ji rek ah, nga ne kii nitu safara la de yëfu hmm. safara jëfi safara lay def xanaa xamoo ne ñaara ngi ni yàlla dafa ne yonent bi génn ci mm. kii dem aljana ak ki dul dem sayo new ci sama coobare la demal nga waare rek loolu laa la sant bi ci des mooy wàllu ruux mm. c'est le domaine réservé de Dieu ñëw yasalunaka ani ruux xuli ruux min amri rabbi c'est le domaine réservé de Dieu ñàkkul ne da nga jaar Paris de sëñ Ahmada da mm. sama bàyyi ma Ahmada si jami xam nga ko mook sëñ Mansour si jami la bokk ndey ak bàyyi dëgg la moom baatu tubaab bi moom moo ma koy wax ba ba may jàngal euh, euh, euh, tubaab ba waaye nu mu tuddati waay. la waaye waay waay tubaab boo xoon si la grandeur du dessein la petitesse des moyens son les trois mesures des œurs de l'homme pourtant hmm. comparé Mohammed humainement à un homme de ce monde. dama fàtte turu tubaab bi. man hmm. ma tubaab bee waxoon loolu yonent bi. pas de Jean Paul. je doute je nes n'est-ce pas n'est-ce pili douter di doute. ay tubaab la yoo xam ne du ko jàpp de. ay transitivité de relation yi. yooyu ay tubaab yu tumuranke la mhm. son sëriñ la dëgg la waaw léegi moomoo ñun ñu demagul aljana ma lay laaj ñun demaguñu mhm. léegi problème bi mooy iblis a ngi taxaw bu ci yàlla jàppul ndax dinañ dugg foog yàlla jàpp ci de parce que man bi ma liiree euh, dix commandement xaw ma onze commandement yàlla yi dix yi ma ko liiree laa ne ñun ñii ah problème am na de xanaa yàlla jàpp ci rek parce que MD ku ko xool xam ni as ku ko xool xam ni sukki nga xool ko xam ni bu ci yàlla jàppul. mais moom moo dina ñaaw dina ñaaw daal. moo yàlla ku mu bëgg ku mu. Ah. moo tax moo tax dama wax la. moom ah. moo bul siise kenn. dëgg la de. du musique du mm. football du théâtre du du du làmb du kenn. bul siise kenn bàyyil yàlla ak jaamam ñu wàññi seen directeur bi tax ñëwul tey bàyyil yàlla ak jaamam. Mm-hmm. moomoon nit dina jaamu yàlla ba dem bay toll fu muy fu muy sukuraatee mhm. jëfoon yàlla jëf ju tax mbaa mu tooñ wàllu yu lu tax mu dee ci ñàkk ngëm yàlla mooy salabil iman mhm. nit dina mbaax jub am lu ne ci moom nit ñi fokk ñu moom safaan mu dem ba toll ci sukkuraat yàlla tourné làmmiñam ba mu wax laa ilaha illallah xam nga bàmmee lu ñuy laaj kuy sa borom mhm. ban diine nga bokk ban téere moo doon sa téere ban yonent moo doon sa yonent loolu lan lay laaj mais buñ la laajee am na yeneen laaj laaj laaj laaj yu ñu lay laaj mu moo am nga xarit bu nekk Sonatel du tee bu la waree coupé dañ lay. coupé coupé am nga xarit boo xam ne amaana sax boo moytul mooy directeur Sones waaye buñ la waree coupé dañ lay. coupé mhm. parce que am na ñuy ñëw mën ngaa ñaan njëkk nag. Mhm. yàlla nee na bët yi ma leen jox ngeen koy xool da ngeen foog ni du ngeen ma fay sama facture. Mhm. nopp ma leen jox ngeen dégg da ngeen foog ni du ngeen fay facture. voix bi ngeen di waxee da foog ni du ngeen fay facture tànk yi ngeen di doxee facture mu ngi koy sa alal foo ko jëlee la yàlla laaj. fu ko jëlee. waaw sa alal ji xanaa xamoon yow mal ñoom ñun dugg aljana 40 ans bugaan doo koy dugg bugaan dina dugg 40 ans après président doo koy dugg yow mal président yi ñooy mujj a dugg aljana. parce que ñoom dañuy layoog yàlla daal. kenn ku nekk yàlla dina la laaj sa réew noo ko yore woon. Hmm. te ñaar gën a garaaw. ki nga xam ni dafa ñëw rek ñu tëb tëb doyloo ko jox ko réew mi ak ki laaj réew mi bañ jox ko ko yamunu àtte. kon Sonko. ki toog nii. waaw ba nit ñi doyloo ko jox ko réew mi. ak kii rayante ba jot réew mi du nu benn ñoom ñaar du nu ñam àtte ki ñu jox réew mi. Hmm. la laajam di gën a oyof ki rayante ba laaj réew mi ñu jox ko mu téye ci ay loxoom at yi mu ko yor. naka la ko yoree mbaa yëg nga ni président bu mu mën a doon ba bakken bu dee te nekkul ci bakken bu yàlla rey dinañ la ko laaj yow mal xiyaam fu mu la fekkoon yow. président waaw waaw Omar Ibn Khattab. Hmm. nga xam ne jullit ñi rek la jiite woon. Hmm. dem na ba xam nga fu muy toog frontière Medinatul Munawara ngir daw yawmal qiyaam di yeyoo ak yàlla yonent bi di dégg ñu yey Omar gis nga moom mooy Omar demoon na ba kuy dugg Medinatul a ba mu xam kan la kuy génn Medina mu xam kan la. dox la guddi di dox ba gis kenn kuy nelaw mu gis benn mboota ci wetam mu ni bëggumaa yéeg ki di ko ameel ak bëgguma mboota mi réer bu yowmal qiyaamee muy wax ni ci xilaafay Omar la sama mboota réer xoolal Omar ibnu Xataab taxaw di garder mboota mi ba ji yow waa def fii lu xew. mu ne ko ndax yaa moom mboto mi mu ne ko waaw mu ne ko da koo fàtte yow fi nga wéeru nga nelaw bëgguma laa yee bëgguma mboto mi dem mu ne ko yow la kan mu ne ko man la Omar ibnu Xataab amirul muminina daan na yéeg ci kaw gileem moomoo di xalaat di mbéj boppam naan boppam di nga jug ba fekk yonent bi ba jóge ci gileem gi daanu lu waay hmm. muy muy fukki dërëm hmm. muy ñaar muy million muy milliard fu mu mën a dugg mën ngaa nax nit ñi ci sa làmmeñ waaye yàlla nee na balaa ngay dee génne ko sa yaram ba mu set wecc feebar bu ne dinaa la ko teg. alalu askan la. moo tax yow mi xëccoo réew xamoo du xew bi ci des yàlla dafa wax ne ki réew mi ne ci loxoom dalalal sa xel ci moom du yaa ko fa teg. maa ko bu doon xëy subaa ngoon guddeeg bëccëg liggéeyul da ngay sonal sa bopp man yàlla bu ma nee du wàcc du wàcc mhm. waxal ko lu ñaaw waxal ko lu bon mhm. ak loo mën a wax man yàlla lay neex xulillahuma maalikal mulki nguur gi maay borom mooy fal a tuutil mulka man tasa nguur gi maa ko jox ku ma neex loo mën a wax ci moom ci lu ñaaw laa wax te warul wàcc yàlla nee na du ma ko wàcc dëgg la de bu fekkente ni daa war a wàcc loo mën a wax ci moom lu rafet te yàlla ni day wàcc parce que mosuñoo contre. xam nañ li ci yàlla wax ca Senghor. ba ci Abdou Diouf ba ci Ablaye Wade ba ci président Macky Sall mi mës ngaa gis benn xalifa généraux bu contre président. xam nga lu tax. Mm. ñoom ñaar ñoo bokk benn kenn ki leen jox li ñu yor. ñaari pouvoir la. Mm-hmm. pouvoir u diine pouvoir aada. Mm-hmm. pouvoir u diine mu jox ko xalifa bi pouvoir aada mu jox ko njiitu réew mi. Mm-hmm. ñaar ñooñu du ñuy juyoo ndax ñoom ñaar ñëpp ci taqandeeru yàlla la ñuy dox. moomoo aaye boobu Sénégal a nga koy jàng waaye ko yàlla nee na waxal yonent bi xul waxal laahuma maalikal mulki yàlla mooy borom nguur tutil mulka mantasa yàllaay jox nguur ku ko neex yàlla day dem ba ci biir mu ne wattu zil lu may wàcce mantasa ku ko neex xam nga lu wax hmm. bi yeddikal xayru ci sama loxo bu tedd bi maa koy joxe joxuma ko yonent bi joxuma ko sëriñ bi joxuma ko wàlliyu bi joxuma ko seytaane bi joxuma ko ku jubti man yàlla may xool ku ma neex ma def ko njiit ñun yàlla rek la ñuy topp waaw may xool ku ma neex ma wàcc ko nga ni ki toog du ma neex kon na wàcc ñun yàlla rek la ñuy topp yàlla ni boo ne day wàcc te war ta wàcc boo ko bëggee fattama rey la yow ñun yàlla rek la ñuy topp oustaz topp ñu keneen ku dul yàlla mais sunu mag ñi hmm. sunu magu réew yi yàlla la ñuy topp yàllaay fal ki ko neex bu xëyoon defarul dara ci réew mi. Hmm. yàlla ni maa ko fi teg man la neex. bu doon defaat xola bu defoon Sénégal ba waroo France ak Amérique. Hmm. yàlla ni ko sa wàccuwaay jeex na bu àdduna bi yëpp doon ànd di ko voteel yàlla ni day wàcc. Hmm. bu nit ñi voté yàlla rey ko jëlee ko fi mu wàcc benn yoon. moo tax njiitum réew yàllaa koy fale. boo xëccee bañ dox la ko mën ngaa doxal benn at ñaari at yàlla nee na cofeel fi mu ne nit xamu ko. bëgg sa soxna xamoo ko. yaa ko tànn ci biir jigéen ñi am na jigéen ju ko dàq daw topp la gisoo ko mm-hmm. lu tax mu tànn la xamoo ko mu moo yàlla nee na cofeel fi mu ne man yàlla maa ko fa suude boo yoroon ay milliards di ko jox nit ñi pour ñu bëgg la yàlla nee na bu ma nee dun la bëgg dun la bëgg law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna xulubihim walakin allaha allafa baynahum yàlla ay defar noppalal sa bopp maa la wax li am na koo xam ne bu la seetaanu du am jàmm am na koo xam ne fu ñu commentaire mu saaganu dëgg la de ni ma mel ci réew mi neexu la waaw xanaa nga waxtaan ak sunu borom. yàlla koy def. dëgg la de yu la saagaa ci commentaire duggal ci facebook am. Hmm. topp ko ci photoom demal ay photoom bu la doyut nawle waroo koo tontu. bu dee ni ma nit ñi bëggee neexu la. waxtaanal ak yàlla rek. xam nga njiitum réew lu koy saxal ci réew. mooy lan yërmande. ak tolérance. Hmm. yàlla nee na boo baree looy jéggale. Hmm. bari looy yërëme. nee na boo yërëmee ñi ci suuf ki ci kaw yërëm la. te nee na boo yërëmee ñi ci suuf comprendre ne ay jaamu yàlla lañu. lin lay def nga rusee ko li ma la defal ndax nit ñi bari nanu de Sénégal nit ñi fi juddoo bari na maa la tànn ci biir nit ñi gënoo fi ndey gënoo fi baay maa la tànn ngay fanaan fii ci pale mm. sa sëriñ a mën a ñaan kenn mën a ñaan man yàlla maa ko wax ci alxuraan man la neex ñi ma la booleel nag samay jaam lanu inaa naa jaalnaaka xalifatan fil ardi faxkum bayna naas bil adli mm. maa la def ngay njit atteel ci nit ñi dëgg boo amee par parloo nag yàlla ni cofeel bi ma defoon ci ñoom laay rocci ñun yàlla rek la ñuy topp kenn dootu la bëggati ñun yàlla rek la ñuy topp oustaz. njiitum réew kenn du xeex ak moom. dëgg la de. xam nga tax. Hmm. soxla boo mën a am. Hmm. billaahi sañ-sañ boo mën a am. Hmm. bu jàkkaarloo yoon ne la luy sa problème fàtte nga ko. moom président kon ñun Macky rek lañuy ñuy topp de. <laughs> ba mu wàcc. keneen ku fi yàlla teg nga teg ko fi. fi mu ne nii moom ñun rek la ñuy topp. ba ba ba mu wàcc. président Macky. keneen ku fi gis nga bu yàlla ne day wàcc. mënoo fexe fexe fexe ba du wàcc. bu yàlla ne du wàcc kenn mënta fexe ba mu wàcc. daal xeexal demal toj osan jàmbur dama toj bërëb bële dama toj bërëb bële yàlla nee na tojal estation yi ci Sénégal yëpp bu warta wàcc du wàcc yàlla nee na demal di defar defar muy gën a jekk bu ma nee suba ngay wàcc xoolal nee na ko yàlla dañu woon Macky Sall demal nga defal yeneen BRT xaw ma demal nga defar Sénégal ba mel ni château bu ma nee la 2024 bi da ngay wàcc yàlla nee na mënoo fexe ba doo wàcc yàlla nee na boo jàppoon waa Sénégal yéeg ñëpp oustaz yéeg sëriñ sëriñ ñëpp tëj ci kaso bi ba àdduna bi yëpp di la móolu ta dama te te tamani doo wàcc mm-hmm. yàlla nee na yaay toogaat rek aayo boobu nañ ko teg suñu kanam. mi ngi noonu defe naa ni leer na euh, waxtaan bi tey neex na euh, gisuñu sax heure bi mi ngi dem euh, et puis oustaz foog ñu jox gars yi rendez-vous nag dimanche parce que ziare général bi dimanche bi lañu ko jàpp ca Tiwaawan. waaw incha allah ah bisu bisu bisu bisu Cheikh radiallahu taala anhu bisu Serigne Babacar wax naa la ni mooy borom dàkkantal yu bari yi moom moo nit ñi dañuy bari lool kenn ku ne am sàkkar yàlla hmm. waaye boo nee borom sàkkar yàlla bi sa xel dem ci Cheikh Al Khalifa Serigne Babacar benn yére ci moom rek nga koy dégg muy bone kaare borom bone kaare bi hmm. ali booy mi sey sàmbay naar diyaara sàmbay naar hmm. sii di dem ba ma ca jawaar Cheikh Al Khalifa Serigne Babacar moom biñ ko yóbboo ndax ba mu naan tubaab yi da ngeen foog ni dégguma tubaab waaw leen waxoon ci aaya ba Cheikh Al Khalifa dafa dafa mënoon a sañse bu mu saan a sañse waa Ndar dañ naan fàq di ko seetaan ndax civilisation hmm. am ñu naan xoolal kii naan doomu alaaji Malick la bàyyi bàyyim nekk Tiwaawan di joxe hmm. tarixa beeg daayira yi mu toog fii di sañse hmm. jàngoo tubaab jàngoo arab Serigne Babacar di romb yor kaanan di ko fëgg ci biir pont Ndar bi naan leen euh, euh, indi na nii xat kuntu min ahli ndari wa nii bii ri rii daa àndari man waa Ndar laa maa ngi dëkk rii àndare la bon dégg naa tubaab dégguma tubaab dégg naa arab dégguma tubaab yéen seen problème mooy ebe ngeen yi sono leen nit ñi ak noonu ak parce que mu wax leen ci la waxay suma la xayta minhum wahida ah. yakunu mee ebe ah. ah. yakunu shahida a jëh la daa widaai maarufun il faut il faut mu allafun bila ajal si si wa way way la daa taxqiqu xawlin wa amal wa zaka dabun musbitun maa parce que wa shaddidil hadisi lafzu est ce que Cheikh Al Khadim kenn moom. Serigne Babacar Sy borom Bonekaare bàyyi sëñ Mansour. Roqe maa ngi lay la ziar bu ah. baax di la kontaanee. Seyda nuyul ma ko bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. maa ngi koy dégg ah. lu bari. sama xarit yooyu nga xam ni. kon Tivaouane dina neex dimanche. loolu de mooy El Hadj la. kon leer na Aïcha euh, kontaan nañ ci téléspectateurs yëpp ñu ngi leen di euh, béggee comme ni ñu koy defee à chaque fois euh, bu ajuma jotee fii ci plateau bu rendez-vous rendez-vous tay bi nag jeex na gunge nañ leen semaine bi yëpp lundi ba vendredi ci seeni RV donc dinañ joxante waat rendez-vous lundi bu ko defee ñu dugaat ci beneen semaine RV ñu ngi profité di baalu ak ñëpp di baalu ak ñëpp itam et puis di gën a ñaax chauffeur si ci ziar général bi ñu jëm nànk dal nànk mën a ziyaare ji nànk itam te ñibbisiwaat nànk kii yow la oustaz <laughs> oustaz nag santal bugaana seen tv de coppeeku am na de mooy lii de xam naa ni bu ko MD gisoon eh. dinaa mbégte lool ci moom waaye ki ma den limaam yëpp ree na ko moom <laughs> dëgg la de mu ne <laughs> nee na nga yónnee ko ko MD wala maa ngi koy yónnee MD MD MD dinaa la yónnee ay photo yoo xam ne man ak Alima Ndione hmm. bi ñuy doog a xamante hmm. ma yónnee la ko non photo boobu o oh, li ma naqari li heure bi di jeex. Mm-hmm. mais MD am na bu ma la yónnee am na bu ma Alima Ndione yónnee woon moomoo ndax amoo ko. Mm-hmm. man ak Alima. Mm-hmm. waaye waroon naa ko am waaye xam nga ku ma ko yónnee. këru Alima Ndione. Euh, oustaz dama am benn euh, xale bu nekk Mbour. ndeysaan bu tudd Adama. Adama nee na moom moo wax la ni euh, kii nag moom dafa franche moom. nee na ma waxal ma ustaas man damay njaaloo waaye nan laay def ndax amul aaya wala lu ma mën a def loo xam day tax ma bàyyi ko na saxoo laa ilaha illallah tey jéggalu hmm. bu saxoo laa ilaha illallah tey jéggalu léegi léegi ala bi zikrillahi tatmainul xulub moom laa ilaha illallah day dalal xol ku ci nekk laaja moom dañ ko koy wax ah dëgg ku ci nekk sa laaj dañ ko koy wax di waaw léegi m dee laaj m laaj laa ilaha illallah lay def xanaa yow bii daawoo ko wér de ma ne jamono ji nu mu demee woon noonu oustaz. waa kii lu mu la woon léegi. kii oustaz eh, sa bële bii. je yére waaye yére bi fu ma ko jëlee ci woon maa nii laa meloon. Aline alin Niang Aline Niang. Eh. Aline da jaay baax rek Aline Niang tey rek nga doyal nag. mais xoolal Aline Niang ni mu mel fii MD. MD bi may doog a ñëw seen TV maa ngi lay yónnee photo bi moomoo. Eh. man ak Alima bi ñuy doog a oh, nee na ma temps baa ngi jeex. <laughs> bi ñuy doog a daje seen TV. waaw. photo bi bañ na ni du ñëw. mais bu ma la wanee bi may doog a ñëw seen TV man ak Alima Ndione ñoo xamante moom moo xam nga lu ma sol. Euh, période du corps yi daan jaay Pikine dañ ko daan jaayee trois mille cinq cent. ndeysaan moom laa ci sol évolution am na nag naa la ko boobu man ak Alima Ndione ndeysaan. E, e, évolution am na nag. Hmm? évolution kon am mais nit ñi moom moo melu woon nii. dëgg la nit ñi meluñu woon nii. dëgg la de bugaan melu woon nii. MD mm-hmm. mm-hmm. yónnee naa la ko. Mm-hmm. yàlla baax mu sa bañ. ñu tàggoo waale. yal na nu yàlla di ñëw oustaz yàlla defal nu dégg ak topp amiin moomu koor gi ñuy dugg xam naa hmm. ni man plateau kii sax ñoo may dàqal ngoon ni ñoo ma dàqal guddi yi rendez-vous yi hmm. moomoo yónnee eh, yónnee bi nga xam ne man ak Alima hmm. ñuy doog ñëw seen TV bi ñuy doog a daje seen TV moo xoolal lii tey <laughs> eh, moom xool daan def bopp nee na c'est